waaw xam nga man damay wax si d'abord fi ma nekkoon j'étais dans la commission bi nga xam ne moo doon traité affaire euh, euh, transition bi à partir du 2 ñun waxtaan nañu waxtaan bu yàgg sax euh, ku ne joxe na xalaatam ku nekk itam li mu yaakaar ne moom mooy li gën si réew mi wax nga ko yi fa dégagé wu comme proposition am na ñoo xam ne ñoom dañu ne le deux na président dem ñu wut keneen ku fi toog organiser élection yi xaar président bu bees bi am na ñoo xam ne également dañu wax ne euh, le deux bu jotee président na toog gere kër gi ba ku bees ki ñëw donc yooyu yëpp ay position la mais position bi ci gënoon a ëpp solo moo doon euh, position bi ci ëppoon bi ci ëpp ñu ko défendre mooy que bu ñu àggee ci le 2 avril président mandaam jeex na mais pour des soucis de sécurité des soucis de de de, de stabilité ah pour des raisons de paix et de stabilité dañu war a bañ a jël risque di fi indi koo xam ne mësul jiite réew ci réew mi dafa nekk ci crise ñu bëgg dem ci sortie de crise ñu fi indi koo xam ne ku bees la xamul nan la ñu yoree réew mu ñu indil problème loolu moo tax ñi ëpp si ñun dañu ne nañu tënku ci article 36 alinéa 2 de la constitution bi nga xam ne dafay wax ne président de la république bi nga xam ne moo fi nekk lenge yi mi ngi koy jox président bu bees bi mais du ko jox keneen koo xam ne kenn falu kon ci loolu la ñu yaakaar ne mooy décision bi gën a sage moom la ñu proposé en majorité pour que président bàyyi si xel bu ko ci bàyyee xel ñu xool nan la ñuy réagir parce que ñaari weer quand même nga jël ci risque di jël réew mi di ko jox koo xam ne xamoo ci lu mu koy dugal loolu itam yaakaar nañ ni c'est une question de responsabilité ñun dañu bëgg a jël suñu responsable Sénégal du caaxaan yore réew du caaxaan Euh, ku bañ Macky Sall am nga ci droit ñun ànduñoo ak moom ndax dañ ko fi bëgg a jëlee teg fi Karim Wade kon ñun ànduñu ak moom. dañ ko fi bëgg a jëlee teg fi Karim Wade kon dañuy liggéey pour moom ak majorité am du ñu am ndam kon mais luñ ñu bëgg loolu bëgg loolu itam dañuy dese xel. dese xel mooy du ñu bokk ci ñiy dugal réew mi ci guta du ñu bokk ci ñiy dugal réew mi ci muy tante ak di expérimenter benn waaye bu jógee fa la nga xam ne kenn falu ko dañ ko désigner rek mu ñëw bëgg yor réew mi ci ñaari weer kese. nu préférons ki nga xam ne moo ko yoroon fukki at ak ñaar loolu mu continuer ko loolu loolu dafay dellusi ci kaddu yi à chaque fois la question de l' expérience est ce que tey euh, dinañ ko def exigence pour une présidence pour la présidence de la république parce que gisuñu fenn fi nga xamante ne texte yi wax nañ ni pour nga mën a jiite réew mi il faut nga am expérience non ñun sénégalais yi ñun ñooy décider kan moo ñuy jiite loolu suñu droit la ku dalul suñu xel duñ la jiital tant que ñi ngi fal maintenant li ma wax dafa leer du ñu am président bu ñu fal mandaam di jeex ñu nekk ci situation bu exceptionnel ñu war a dund benn transition deux mois ñuy wuti ay kuy ñëw di jàng nu ñuy defee nguur nga xam ne un mois deux mois ba trois mois ba six mois di nga gis léeg-léeg ñu fal ko nit il cherche ses parce que nguur du caaxaan surtout que nag réew moo xam ne dafa toll ci crise loolu laa wax réew mi dafa ne ci crise ki mu fi fekk muy gérer crise bi nañ ko bàyyi mu yeggale gestion wu crise pour ñu mën a am sortie de crise deux mois yaakaar naa du dara ci ku def douze ans ba pare comme que moom nee na le deux ci la mandaam di jeex dafa bëgg a dem ñun sénégalais yi jàpp ne di tante ku bees koo xam ne dañ koy indi xamuñu mooy kan wóorul dañu bëgg moom mi fi nekk mu assumer ay responsabilités ba ni ko article 36 alinéa 2 waxee mu yëkkati nguur gi jox ko ki nga xam ne sénégalais yi nag cette fois ci ñoom ñoo ko tànn fal ko bokkul ak koo xam ne dañ koo désigné. ñun loolu la ñu wax. au delà de cela bëgg naa la laajte tey euh, ndax lii du juraat beneen crise euh, ci li nga xamante ne mooy ci réew mi ndax. président bi mu jëlee décret ngir abroger le corps euh, convoquer le corps électoral dafa jur coow ba ñetti bakkan rot ci ndax lii du juraat beneen coow. Sénégalais yi bu fekkee ne coow lañu bëgg kenn mënu leen tere coow dañu waxoon dàq nañu élection yi ba 15 décembre 2024 alors que ñun suñ proposition njëkk dafa dañ ne woon nañ ko dàq pour 6 mois. c'est-à-dire août léegi ñi ngi wax waxu mai wala juin ngir yàlla nit ñi nañu bëgg jàmm pour réew mi buñ ko taalee léegi kuy perte nañ ko taal xool ay ñaari weer buñ ci bëggee taal réew moo xam ne mii ay junni at mi ngi fi ma xam ne nit ñi i sont de mauvaise foi il faut que ñu am benn sursaut national il faut que véritablement que sénégalais yi ak sénégalaises yi delloo seen xel mais lan mooy ñeenti weer lan mooy ñaari weer lan mooy ñetti weer ñaari weer mënuñu ci toog waxtaan organiser suñu élection ñu bëgg ne daal dañu bëgg a fel yëpp lépp tuuru affaire bi jaxasoo ku nekk di seet nooy def ñun d'accord uñu parce que nous somme responsables ñun dañ jàpp ne en tant que acteur politique euh, jot na ci ñu jël suñ responsabilité wax ak nit ñi dëgg parce que koo ci wax dëgg dana xam ne li nga ko wax dëgg la du ñu jël benn ku ne yow wala ku mel ne man di ko jox nguur gi ëllëg ñuy def ay conneries yoo xam ne kenn du ko mën a gérer dañu bëgg kii fi ne xam na ne crise am na nee na le deux lay pare dañu naroon yóbbu ba décembre sénégalais yi nee nañu loolu gënalu leen ñi war a waxtaan waxtaan nañu pour rapprocher ko rapproché nañ ko nekkatul décembre nekkatul novembre nekkatul octobre nekkatul juillet nee nañu mais bii wala wala juin nga xam ne maximum loolu deux mois la nit ñi bëgg defe ne àdduna dafa war a tukki mais dafa am xëy na ñu am intérêt réew mi jaxasoo dafa am ñu am intérêt réew mi nekk ci guta dafa am ñu am intérêt réew mi salfaañoo. parce que ñooñu ñan la. non ñooñu mën nañ nekk ci biir réew mi waaye dañuy lëngoog ñu nekk ci bitim réew mi ndax Sénégal aussi y a les narcotrafiquants y a les lobbies également ñeneen ñoo xam ne dañoo am intérêt. ci Sénégal no ressources humaines le pétrole le gaz ak yeneen ak yeneen yi am ci Sénégal mais bu fekkee ne nag am na loolu lépp ci Sénégal dafay am ay puissance yoo xam ne ay lobby la ñu nekk ci bitim réew dañu fi am intérêt ren li fi xew mësul xew Sénégal yéen la presse national vous êtes débordé par la presse étrangère ñoom ni ñuy li ñuy relater yéen ñi dëkk ci dëkk bi relaté wu leen loolu fait yi ñuy wax yéen ñi dëkk ci dëkk bi waxu leen ko parce que c'est pas réel ils ont partout que le euh, pays et à sang et que nit ñaa ngi rayante que wax nañu boo wax ne guerre civile dana am boo moytu loolu coup d'état est-ce que am na fi benn organe nu Sénégal bu wax loolu wax ju rëy loolu. le président de la xam nga loolu amul bu ñu organiser mooy li ma wax mooy li ma wax moom li mu xam yow xamuloo ko li ma li mu xam man xamuma ko. waaye li wóor mooy bëri na ñu nekk bitim réew ñoo xam ne bu ñu sañoon ñu teg loxo ci Sénégal. da nga yaakaar ni crise amuloon. crise am na. crise am na moo tax ñu nekk situation yi. d'accord d'accord crise am na. d'accord bu rëy moo am dañu war a ci crise bi waaye booy génn ci crise bi doo wut amateur bu xamul luy nguur nga jël di ko jox sa réew pour deux mois muy salfaañe di ñu yokkal crise. jërëjëf ñu koy euh, gërëm di ko sant bu baax